donc euh, vraiment maa ngi félicité ñëpp ñëpp lay félicité. Mhm. pour sa prestation aussi euh, individuelle je parce satisfait vraiment kontaan euh, naa te il a fait une bonne entrée ça a payé ça s'est concrétisé donc je ne peux que féliciter. il pouvait marquer plus. c'est possible c'est possible. waaye <laughs> il a mhm. raté quelques quelques occasions. Mhm. xam nga occasion laa ko tuddee sax mais. en tout cas il a tiré il a fait il a fait il a eu je pense deux tirs. ñu mhm. dal ci filet petit filet bi. pour venir ci transformé bi bi bi duggee naka naka la def. xumb rek. ah yuuxu yi am pagaay yi foo toll dégg yuuxu. ndeysaan vraiment c'était c'était c'est bien. c'est mhm. bien football mhm. daal xam lan la mais mhm. surtout. yaa doon dégg avant match bi. Ah loo ko wax. je tout simplement encouragé et na ko xamal ne euh, vous vous un peuple à tout moment du match boo si duggee fait de ton mieux daal kenn bañul bañul bañul euh, sikk daal mhm. loo mun def ko mhm. c'est pour le Sénégal c'est pour ton pays donc euh, rien n'est kii rien mhm. tamit moom ngay wax naata ngoom yëpp ah, moom laa wax ñëpp aussi moom laay continuer aussi di ko wax parce que comme compétition bi jeexagul li huitième bi final nekk Mhm. donc toujours maa noonu la leen digal di ñaaxe ñoom ñëpp laay ñaaxe noonu. nga mhm. xam peuple tout le peuple mhm. donc euh, bu ñu dugatee def jom pour la fayda ah, libérer peuple bi. laa bëgg. jërë jërëjëf papa mu nekkoon Amath Dieng nekk papay euh, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng joueur Sénégal boobu nga xam ni tey jii moom moo dugal deuxième but bi. di football bit bi ñu libéré moom Bamba moomu yàgg naa yeewee askan wi <laughs> euh, kon ñu. li